di mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di di am mbégte bu baax jàkkaarloo waat ak yéen fii ci bu so waaye ci biir loolu may tàmbali samay kàddu ñaanal suñu xalifa Cheikh Ahmadou Mountakha yàlla dolli koy gudd fan ak wér ba naa lim naa liggéey Seexul Xaadim am ci kawe njortam di ñaan président de la république jàmm ak salaam ak xéewal ak ndam lu rëy rëy loo xam ne ci département bi dana kawe njortam di sant tamit dëkkandoo yi ak xarit yi ak soppe yi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey bi ba agsi fii ñu ci agsi tey di wax ni euh, tey nag dañoo am tuuti ay kàddu ñu bëgg a weccante ak askan wi rawatina waa Touba ndax dañoo gis biñ commencé liggéey ak ñoom ba léegi ci luy may Macky Sall ndam fi ci département bi rawatina biir Touba dañoo am xel mu dal ak xol bu sedd lool pasteef bi nga xam ni dëkk bi wane na ko ngir jàppale ko ngir bii yoon waxee sëñ taxaajoo ñu man a am effet ci département bañ gañee dëkk bi ci biir loolu nag ñu seetlu ni am na ay leader yoo xam ni muy fii Touba lañ ko waxee wala feneen seenu melokaan mooy xaste ak ŋàññe ak wax lu ñaaw ak dox diggante nit ñi ak askan wi seen bopp te kenn jiitu ku ñuy wax Ousmane Sonko di nit koo xam nit fitna la nitu nitu nitu nitu ay la di wax ni que bu fekkee moom dafa ñëw ba Touba ma ma woon naa wax ci ay jëfam ju ñaaw ma woon na ko bañ a agsi war Touba waaye bi ñu gis ni depuis depuis le départ ba ba fi mu ak ci actuellement nii mënul génn mënul génn ci làmbañam wax boo xam ni lu wax bu yàq la wala wax bu tasaar ak bokk la wala wax buy suxat aw masiba la ci am réew ku mel noonu nag dañoo jàppoon ni bu accès bi fu mel ni Touba war naa mën a sàmmonte war may Touba war naa mën a sàmmonte kilifa yi fi nekk ba bu fi yëfri kàddu sax ñu xam ni fii jumewu fi waaye dëkk ci njuumte nag mënee su ko nangu tey mënee su ko nangu ëllëg ba tax na bi mu ñëwee ba Touba dayoon na sëkk gàcce waa Touba ñun amuñ lu dul Serigne Touba amuñ ko lu Serigne Mountakha mu ñëw ba Touba jaar fi jàll mënoon na caa yem waaye yemu ca mu dolli ci teg ay kàddu yu ñaaw yu suufe yu ko yoo xamante ne nii jàppoon nañ ni kenn na koy wax ku mel ni moom di wax ni waa Touba ma Sall dafay xëpp xaalis bu dul jeex mel ni ñun dañ dañuy jënd wala dañuy jaay loolu itam di wax bu ñaaw boo xam ni ñu ngi koy wax ni ko na sukk jébbul na sukk tuubal waa Touba ndax tooñ na tooñ na tooñ na taalibe yëpp fu amuri nekk tooñ na la ci wax jooju mu wax wax ju xamandiku la wax ju ñàkk la ba tax na nag ñi ngi wax ni population Touba bu kenn yàq seenum xel bu kenn yàq seen xol ci seen ci seen Muntaxa bu kenn yàq seen xol ak seen yéene ci Macky Sall li nga xam ne nag mooy liste bi nga xam ne mooy benn bokk yaakaar liste bi benn bokk yaakaar am ci département bi ñu gaskaltum jiitu ko ak Cheikh Amadou Bali loola itam ñi ngi ñaan mbooloo koo xam ne na yow mënoo jiite ab ab ab ab coalition mënoo koo jiite mënoo sax teg investissement bu baax sax mënoo koo def bëgg a yorum réew bëgg a yor assemblée nationale loolu ak yaa tas am réew la féewale féewale féewale am réew la. kon dañuy wax ni coalition Macky Sall bi nga xam ne benn bokk yaakaar depuis lu ab fukki at ñuy ànd mosoo dégg xiroo mosoo dégg ŋaayoo boo xam ne jur na lim jur ci coalition Yewwi lim jur ak fitna ak gaañante. loolu tamit kon wax dëgg yàlla doy na sëkk seere ni coalition bi ku ko jàppale da ngay suuxat jàmm te jàmm yooyu ci lañ seexul xadim woo ci la ñu yar ci la nàmpatal loola itam ñu ngi ci woo waa waa dëkk bi ñu xam ni eh, li nga xam ne ñoom ñu ngi koy def ci ay manigance ak ay ay ay manipulation bu mu leen bu mu leen yóbbu fenn nañ dëggal kicc ci liñ nekk te loola moo di sàmmal sañ mun Muntaxa ak kàddoom ak yéeneem ba dëggal ko ci dëkk bi ngir Macky Sall am ndam ci département bi maa ngi woo nag maa ngi dama ko waxee te bu yoon mu jëkk di woo képp koo xam ne ab sëriñ nga nekkoon feneen la leen tax la nekk rek ñu lay woo waxtaan woo xamante ni bu ñu ko amee ñu bokk ànd soob ci liggéey bi ngir jëmmal kàddu si mun taxayoo ci mu am ndam ci département ngi ñaan waa Touba yëpp ñu man opposition bi li li ñuy wax mënuñu ko Touba itam li ñu soxla oppo nekku ci loxoy opposition gannaaw loxoy Seexul yi ko yàlla teg loolu ci loxol président de la république la nekk te loolu mooy lan mooy fekkee nañu soxla ay yoon wala ñu soxla ay ndox wala courant wala hôpital wala leneen ak leneen te ku gis na président de la république taxawaay bi mu am te musta tay musta yokkat kon bii yoon nañ wane suñu bopp ni am fulla ak fayda te jàpp ci liggéey bi te xam ne loolu mooy li nga xamante ni mooy neex Seex Muhammadu Muntaxa te Seex Muhammadu Muntaxa lu mu xas bëgg suñu borom dana ko fekk si ndamul Muntaxa ndamul euh, la bëgg te loola moo war a doon ndamul taalibe yi bu ñu fexee nag ba xoolee ba liste bi ba liste bi jàllul loola gàccee muri yoonu muri yëpp lay doon ndax ndax ndax ndax li tax mooy di koo xam ne yow mënoo mënoo construire ab coalition mënoo construire mënoo investir sax ab liste ba nag bëgg nañ ay élection fii département bi wala fii ci commune bi loola itam doon na gàcce ci loo xamante ne nii dana gën suufeel kaddu yi nga xam ne mooy kaddu kilifa yi nga xam ne am nañ yéene ci Macky Sall am engagement ci moom ngir mu am ndam ci réew kon nag bépp talibé bépp sëriñ bépp xarit bépp wóolare ñu ngi lay ñaan liste bii bu la te du ma bàyyi te saa su ma xëyee dal gën a sopp kon sëriñ bu amoon sax lu ñu woowee ab xaj mooy borom ñeent tànk yooyu su ko amoon sax war nañu ko mën a bëgg ñun murid yi tax bëgg bëgg la ko te xam ni ka ko bëgg ko ci la a xool laneen di juddoo feneen ci kurul si mun taxaa kon nag maa ngi woo ñëpp di gàttal kàddu yi fii di bàyyi mbokk ci des asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu ñëpp jël nuyoo bi di ci jiital xalifa général de Mouride di nuyu mboole mi responsable yi fi teew di am nag ay Mouhamadou Mourtala Bousso euh, di responsable fii ci Touba fas yéene jàppale Benno Bokk Yaakaar ci élection yii ñuy jëm ak yeneen i élection yi ci suñu kanam am rek lu ñuy leeral loo xam ne dañ koo dégg fii ci Touba ñenn ñaa ngi commencé xëy na jaaxle buñ am ci liñ foogoon ne danañ ko am comme ay résultats fii ci département bi mel ne ñoom dañoo gis wala ñu yëg leneen loo xam ne électeurs yi foofu lañu nekk moo tax ñu commencé continuer seen diabolisation yi ñuy def ndax am na benn ndaje bu amoon daaru marnaan ñoom jël nañ ko am ay kilifa ay imam yoo xam ne ñu ngi ci doon waxtaan ak ñoom ba tey tey tey jii am nañ information ci ne am na benn imam bu jël engagement fii ci Touba wane ne dana ci def benn xutba suba kooku nag ñu ngi koy xaar bu soobee yàlla ba suba ci ajjuma ji laneen li ci desit ma di ko leeral mooy ñun ñi nga xam ne ñooy doomi Touba nekk ci Touba di taalibeeb Sëriñ Touba na am yu bari yoo xam ne ni nañ ko bàyyi xel lu mel ne liste bii nga xam ne mooy liste wallu ca seen ñoom ñoom ñooñu seen kilifa gu ñuy wax usmaan Ousmane ko ñëw fi ñoom ñu teere ko ci ñoom niñ ko mane yaakaar naa ne ñëw na Touba ba génn ci kenn déggut kilifa goo xam ne ni dem na seeti la amul kilifa genn goo xam ne nii dem na seeti la loola nag bu nee ne jox na dëkk bi war ma wala respecté na sëriñ si jàpp naa ne loolu ak njuumte la tegtal bi ma ciy joxe rek mooy sëñ Muntaxa bi mu defee déclaration bi woote njàngum alquran ak xasida ay istixfaar ak salaatu ala nabi jour boobu ñoom ñi nga xam ne dañoo topp seen kilifa googu ñoom ci jour boobu ñu ngi def seen caravane kon bëccëg bi ñëpp ñëpp ñu ngi ci Touba di jàng alquran di jàng ay xasida di defar ay benn ñoom ñu ngi ci seen karawaan kon ñoom seen jikkoy kilifa googu moom lañ yor di xamal ñëpp na leen ñoom liste bi ñu yor boo ci dajee woon ak benn responsable ci ñoom ne leen liste bi tuddal ma ci fukki nit duñ la ko wax parce que seen liste suppléants yi Ousmane Sonko taxaw na ci benn palaatoo wane na moom xamu leen parce que du bàyyi liste boobu jàll kon moom ndegam xamul leen nan lay campagner wala muy woo askan wi ñuy fal ñun xamut jàpp naa ne loolu loolu njuumte la ma bëgg waa Touba xam ne ne Serigne Mountakha joxe na ay tegtal leeral na li mu wax président de la république nag yaakaar naa ñiit nekk fii ñëpp di mbelelele ak di coow ñëpp kum ko waxoon sa waajur baa mu wax la ko bu at mi dellusee danga nga ko jàngalee kaamil màggal ko woote ko war cérémonie bu rëy a rëy xalifa général de Mouride bu bu taxawee ne la laq naa la ci ginnaaw sëñ Touba sëñ laa lay booleel dem ba àgg ci ne am naa la ameel naa la bor bor boo xam ne ni ñun ñi yaakaar naa ñun ñoo ko war a fay ñun ñi nga xam ne ay taalibeem lañ muy bu bu dimanche incha allah le 31 juillet ñu jël suñuy carte dem fayale sëñ Mountakha bor bi muy wax. parce que président Macky Sall kenn ci ñoom ñu koy opposé amut kenn koo xam ne ni dana la na lii a tax wala dafa liggéeyut réew mi wala lii moo tax wala nangama nangam loolu amu ci dañ lay wax rek liggéeyut li si góor jigéen li si góor jigéen boo xam ne sëriñ Tuubaa nga fa. liste góor jigéen boo xam ne ñoom ñoo ko doon wax ci référendum yi gisuñu ko liste góor jigéen boo xam ne ni mënuñ ne la lii la loolu yaakaar naa ay diabolisation la ca sëy président de la république dafa am lu bari loo xam ne daf koo def fii ci Touba ñun ñëpp ñu gis ko da sa bët da ciy tege sa sa loxo man cee laal muy lu mel ne Ila Touba lu mel ne hôpital bi lu mel ne assainissement bi barki démboo Njaay la nab bi feeñ fii ci tuubaa yaakaar naa mu jeex mboolem ku dëkk ci wetu jumaa ji mu génn benn enveloppe bu bu bu yéeme boo xam ne ni Chinois yi ñu ngi ci di liggéey di liggéey liggéey liggéey bu rëy rëy kon yaakaar naa ne euh, bor boobu sëñ Mountakha wax ne euh, ameel na ko Macky président Macky Sall kon ñun ñii di ay taalibe ñun war nañ ko koo fayal te di ko sant te di ko ñaanal nag loolu di ko di am ñeewantal ci moom ci ne loolu ko sëñ Mountakha wax ne ko làq naa la ci ginaaw suñ tubaa di wax président ne ko foofu rek mooy làq waay wi foofu rek mooy wéer waay wi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax rek ne ñi nga xam ne taxaw nañ pour xeex liste Benno Bokk Yaakaar bi teguñu ko fenn ñoom sax xamuñ li ñuy parce que xëy na euh, dugg nañ wala ñu wax loo leen wala ñu duggal leen ci benn combat boo xam ne moom koo ci toogoon du la ko mën a du mën a expliquer mu leer kon kàddu yooyu laa amoon ci lu ma ci doon leeral di sant ñëpp tey gërëm ñëpp wasalaamaaleykum. waaleykum ki gi Modou Mamoun Niang maa ngi nuyoo tey siyaare ñëpp tey baalu ñëpp tey baalu ñëpp tey ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha suñu borom gën ko fa yàggal te yàggal fi mboolem njabootu Serigne Touba gépp ak taalibe yëpp di ko ñaanal mboolem lislaam bépp kàddu yi nag xam naa ne kàddu yi sant yàlla rek ndax dafa am luñ dugg duggoon ci ñaanoon suñu borom ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin mooy li wax campagne électorale yàlla dogal nag ndam li leer nañ suñ kanam ñu gis ko loolu nag moo waral coow li ak jëfur yi ngeen di dégg ci dëkk bi parce que yaakaar naa ne président de la république jàppale ko ci dëkk bu mel na Touba daf fekk ne rek nit ñi dañoo gëmoon seeni bët wala naxoon nañ leen walla dañ leen a jabalise woon ba lu bëri umpoon umpoon leen ci biir campagne bi nag amoon nañ occasion ngir man leen a leeral réalisation yi nga xam ne président de la république def na ko fi ak it <coughs> wan leen dëgg-dëgg kan mooy président de la république ndax bari na ñu ñu ko ump ñu ko umpale dëgg nag ci baax ak yiw ak yar ak teggin ak li nga xam ne exploité na ko def ko li nga xam ne def na ko biir Touba ci ay réalisation bari na fi nag ñu lay limal sax dañ lay wax ne la Ila Touba wax la assainissement wax la yu baree bari yëpp yu am solo la waaye li maanaam active bi gën a am solo gën a noble mooy fête nationale gi def màggalu tubaa loolu ñu bari dañ koy fàtte te loolu màggalu Touba mooy li gënal sëñ Touba li ëpp doole ci sëñ Touba li mu lépp ci bis la ko am président de la at mi fi ñëwee mi ci topp moom la def màggalu Touba muy fête nationale nga xam ne nit ki day fayeeku te du liggéey loolu nag jox cër sëñ Touba la soo ko boolee ak réalisation yi mu fi def nag dangay xam ne. li mu defal sëñ Touba nit mosu koo defal ci nguur maanaam président de la République mosu koo def te gëm naa ne président de la République bu ko fi nar a defati ndimbal ngay am taw fee ngay am ku mel noonu nag bu ko yàlla seddee sëñ Touba te boo ci tuddee sëñ Touba sax dañoo féeteek moom muy suñu sëriñ ñu yaakaar ko àdduna ak àllaaxira waaye l'islam bépp noonu la leen def foo dugg ci réew mi rek loolu ngay gis ci moom da ngay gis ne dëkk booba dëkkub lislaam ba fa nekk la gën a rëy muy jumaa yi wala ab jànguwaay da ngay gis ne président de la République def na ko fa ba pare di taxaw mag ñi di leen dimbale ci li ko yàlla may ci kattan noonu la ko defee it ci umma islam yi bépp waaye noonu la ko def ba ci jàngu bi nga xam ne ay chrétien lañ gëm yeneen diine noonu la mel ci réew mi it nag ci yërmande ak ci jàpp jàppal leen ci wàllu santé ci wàllu dund bu yomb dund bu yomb bu ma ko waxee nag doo ko comparé ak fii jamono toll waaye stabilité bi am ci réew mi parce que loolu it tawféex la mooy réew moo xam ne traversé na ay crise crise yi mu man mën nga cee wut Covid bi gis nga ni méttee guerre bi am Ukraine yooyu yëpp réew mi traversé nga malgré loolu lépp fexe na ba andi ay solution ci réew mi ba réew mi mën a dund ci stabilité loolu nag gone goo xam ne xamoo wala xamoo li dina ci ginnaaw loolu doo ko mën a xam dangay taxaw rek di critiquer foo toll su ko defee ne ku mel noonu dafa am lu looy umpoon waa baax yaakaar naa nag dégg nañ ko bu baax xam nañ ko bu baax a baax ba ci des mooy suñ kilifa gi nga xam ne amuñ lu dul moom Cheikh Mamadou Mountakha nga xam ne yàlla na yàlla gën ko fee bàyyi te gën ko wéral fi mu ko teg ni mu ko jàppalee sëñ Mountakha dem na ba ne président de la république daf maa jàppale ci sama diine te ku ne xam na ne sëñ Mountakha dara ñoru ko ci àdduna lu dul diine l'islam lu dul liggéey sëñ Tuubaa mu ne président daf ma cee jàppale dem ba ne président dama ko ameel bor bor boobu nag gëm naa ne waa Touba comprendre nañ ko xam nañ ko département Mbacké xam nañ ko kon ndam li moom ala kulli xaalin day am gis nañ ko sant nañ ci léegi nag loolu ci biir loolu am nañu jug tàmbali di andi di diaboliser di yàq di wax wax yu juunoo wax yu safaanoo bokk na ci li ñuy wax mooy li ñu woowee ñaari tur mooy góor jigéen muy baat boo xam ne laa xawla wala quwwata wax gi sax dafa xaraam man naa wax loolu te ñoom ñoo ko fi indi ñoo indi wax ji ñoo ko promouvoir ba nit ñu bëree bëri xamuñ koon xam nañ ko léegi président de la république bu fekkoon dafa bëgg daganal loolu maa ngi alerte di jox message sénégal yi bu fekkoon ne président de la république bëgg naa daganal góor jigéen am na possibilité yu mu ko mën a daganal parce que ñaari mandat yi am na ko fi deuxièmement mooy moo yor pouvoir bi yor institution yi ak yëpp moo ko yor tey ji lu mu ci bëggoon a def def ko kon ñoom bu ñu amul luñ politique nañ xool beneen yoon bu ñu jaar ba ci des mooy boo xam ne njabootu Sëñ Tuubaa ñoo ci nekk li gën a ci yoonu murid ginnaaw Sëñ Tuubaa nga xam ne ñoom ñoo njëkk wut Sëñ Tuubaa mooy si Amadou Moustapha ak si Amadou Fadel te seen ñaari sët ñu ngi ci biir liste bi ak ñoo xam ne ay nit doomi bi lañu yar leen jàng leen alxuraan xam loolu kon loolu nañ bunt boobu nañ ko tëj nañ xool laneen luñ politique lu bokk loolu ba ci des mooy lii nga xam ne xew na tubaab ba ki dem nga xam ne eh, ay nit yoo xam ne dañoo am ay diplôme ñu war leen koo jox sargal leen ko xool fi gën a taaru gën a rëy ñu jàpp ne kër Sëñ Touba la te Sëñ Touba léppam xam-xam la woon ñu dajal leen fa di leen fa sargal loolu ñu bëri jël nañ ko diaboliser ko yàq ba def ay images yoo xam ne dañuy dem sax jël benn am na benn journal boo xam ne journal boo xam ne dañ koo jël modifier journal bi wax ne journal boobu sax moom la titre ci journal ci ci jour boobu te loolu loolu nañ xam ne du dëgg ay dañuy jabolise kenn mus sa dem kër Sëñ Tuubaa di fa def politique wala nga fay def ndaje yi mel noonu ka fa demoon di ko fa def Cheikh Abdou Abdou Lahad Gaïndé Fatma mën naa tudd turam sëtub Sëñ Tuubaa la am na intellectuel la am na xam-xam xam na it fii nga xam ne situation politique fii la toll ci réew mi ñuy xëccoo liñ mane ak seeni wax ni mënee ñaaw ak seeni wax lu amut kon du toll ba ci toll ci moment boobu def lu mel noonu kooku yàq la na ñëpp xam loolu bëri nañ sax ay cadre yi murit yoo xam ne wala nit yoo xam ne dem nañ ba wax ci ba géex ba waxee ci xol te fekk ne loolu dara amu ci c'est faux nañ ci bàyyi xel bu baax a baax lam doon def remise de diplôme la woon ay kilifay diina ñoo fa woon ak ay autorité yoo xam ne ci état lañ bokk dëgg la mais remise de diplôme ki jàng ba pare ñu war koo sagal jàpp nga ne fi gën a rëy ci Touba mooy kër Sëñ Touba Sëñ Touba li gënoon a ci moom mooy xam-xam leen fa di leen sargal ñu jug jël loolu modifier ko di wër di yàq di wax lu mel noonu loolu nañ ko bàyyi xëccoo ci lañ toll woon dem nañ ba xam ne gañe nañ leen ñu gis loo xam ne jàpp nañu occasion ñu ko exploité loolu nag lu ñaawa ñaaw la maa ngi ci yee population Touba ak ñi nga xam ne ñu ngi ci bitti di ko gis te xamuñ nu mu demee dëgg-dëgg parce que toujours yaa ngi jot ay message am ñuy woote xamuñ nu mu demee na leer na nii la demee euh, su ko defee nag rendez bi moom le 31 juillet ginnaaw suba ñaari fan moo ci des ndam li incha allah rabbi suñu borom dana ko jox président de muy ndam lu sedd guy su ko defee nag lenn lu ko yàq moom mayuñ ko kenn ñi ngi alerte na képp koo xam ne jàpp nga ne man nga andi na wala nga andi violence ngir jàpp ne jour élection yi mën ngaa créer dara loo xam ne dana yàq ndam lii di ñëw ñu ngi lay joxe rendez-vous lu la jaral rek jaral nañu ko wasalaamaaleykum. salaamaaleykum mbokku téléspectateur u xibaar 24 maam daam loola membre Benno Bokk Yaakaar. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jiital ci nuyoo bi Serigne Mountakha Bachir xalif général kullu murit di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ba li mu yéene ci dëkkub maamam bu sell bii yàlla defal ko ci lu raw njortam. ñëw nag pour indi ay kàddu yu leeral tuuti ci fii ñu jëm muy élection yi ñu jëm tombeek le 31 juillet 2022 bi ñu jëm maam ay leeral yoo xam dama ko bëgg indi fii ci dëkk bu sell bii di tuubaa ndax benn damay commencé ci candidat yi nga xamante ne ni président Macky Sall moom la tànnal dëkk bi ñu mën cee surtout ku mel ni seex Bara man cee tudd ku mel ni Cheikh Abdou Bali man cee tudd ku mel ni euh, Mouhamed sise ñu xam ko ci social xam seex Bara Gaye ci ndimbal yi nga xamante ne ni yàgg na koo taxawu monde rural bi ba ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne kat choix bi président def ah ñun la ko defal may ñaaxaat nit ñi. ngir ñu jàpp ci candidat yooyu nga xamante ne nii dara ñorul leen lu dul dëkk bi ñu jàppale leen ndax yàq yàqkat yi kat dañoo bari ndax Touba bari na ñoo xamante ne nii boo leen laajee lu tax ñu bañ présent Macky Sall duñ ko mën a dut baaraam duñ ne la lii la Touba nag euh, ni ni environnement dëkk bi ni mu ni mu bindoo nga xam ne ñëpp dañoo dox daje xaj na loolu am na rôle bu mu ci joué parce que kenn day wax rek kenn àndandoo ci ñu koy olof di ko wax ma riirandoo il est que nag Sénégal yëpp Touba yeewu yeewu ndax euh, président Macky Sall mënul élection yu ñëw ci Sénégal mu gañe yëpp ba mu des Touba mais mënoon na Touba rek moom moo féete ci dëgg mais sénégalais yi dañuy juum déedéet parce que sénégalais yi aussi li tax ñuy jàppale président Macky Sall di ko fal mooy réalisation yi nga xam ne def na ko ci Sénégal surtout nag fii au niveau de la Euh, commune de Touba la ville sainte li mu fi def amul benn dëkk boo xamante ne nii ginnaaw Dakar def na ko fi muy ci wàllu santé di ci wàllu assainissement barki dem mu napp bii nga xam ne rek xawoon na sonal fu mel ni marché Ocass gar bu ndaw nañ teen yi mu fi def ba man fi ma jógee nii am na fa kër yoo xamante ne tey seen ndox ma dem na loolu nag la koy defal da nga koo war di sant di ko taxaw te bañ a topp euh, riirandoo mi ak yàqkat yi nga xamante ne ni ndax adduna ba mu sosoo ba léegi saytaane mosu fee jóge saytaane day fekk ab yonent mu nekk ci liggéey mu ñëw pour yàqal ko moom kii day liggéey mais moom yàq mooy jëfam te yàq gi li ëpp ci ay yàqam mooy wax làmmiñam wii ndax dana ñëw ne la lii la joxoñ la ne la lii nga yaakaar ne lii la du lii fekk ne loolee la kon nag loolu il fallait que sénégalais yi yeewu ci rawatina waatu Touba ndax ki nga xamante ne nii benn bi mu njëkki njëkk bi mu ñëwee fii dañ ne élection du fi am am ñu taxaw ne ñun de duñ campagne duñ dem fenn élection du am président Macky Sall ne ah loolu day bañ yegg ca sunu kanam la nekk ña woon élection du am ñoo mujjaat dem di campagne kon dèjà ñoom dañuy fëgg bunt bu bunt boo ubbeeku ñu continuer ñu dem defi leneen kon sénégalais yi ñoom ñoo war a yeewu ci loolu rawatina ñun waa Touba ndax diabolisation yi àgg na ba ci barki Dembo Ndiaye Cheikh Abdou Bali lii mu organisé woon def ay remise de diplôme sénégalais yëpp gis ko ci réseaux sociaux yi mu doon séddale ay diplôme yoo xamante ne dafa am ñu ko am ñoo xam ne dañ doon sàkku xam ba am ko mu leen koy jox am ñu jaar ci suuf di taxaw naan dafay def politique te dara waralu ko lu dul nañ ko xool nuñ ko jaxaseeg waa dëkk bi bañ wan leen ginnaaw mbaa ñu gën leen a mere loolu nag nañ ci yeew ca kenn ñenn defuñu ko ñu dut ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk fii Pastef xam nañ leen bu baax daje nañ ba am ñu nu waxtaanal am ay imaam yoo xam ne waxtaan nañook ñoom ngir ñu jàppale leen ci xutba suba ci ajjuma nañu nañu nañu nañu wax ci loolu ngir Tuubaa gépp mën leen a jaboliser ñu ne ñoom teguñu fenn kër Sëriñ Tuubaa yi te fekk ne ñoom ñoom ñi nga xam ne ñëw nañ ci dëkk bi wër ba tas te jaaruñu ci kër sëñ Tuubaa yi ndax li ñu wax mooy sëriñ si dañ leen a ger kon bu leen faale bu leen tudd dugg nañ ci dëkk ba génn kon yéen waa Tuubaa yéen a war a mën a am xel yéen a war a ubbi seen i bët xool ñooñi xàmmee yàqkat yi ak saytaane yi ndax àdduna ba mu sosoo ba léegi saytaane mosu fee jóg te nit njaay la kon loolu nañu ci yeewu Cheikh Abdou Bali nag lenn rek moo ci am am na ñoo xam ne salusi la am na ñoo xam ne xaj na cër bi mu am ci kër sëriñ Tuubaa neexu leen am na ci ñoo xamante ne nii cër bi ko waa dëkk bi jox wax neexu leen ndaxte moom kat waajuram def koo yar ndax ku ne xam na ne sëñ Cheikh Gaynde ma moom yar nit rek mu bokkoon na ci li nga xamante ne nii ci mbébétam la moo taxoon mu teg fi école Daaru Xudoos bi ne ëllëg kat damaa bañ lépp lu tubaab bi mën leen koo naxe ngeen xam ko ba ëllëg kenn du leen nax looloo waral ñu jàngal leen xaj na nag ci xam-xam boobu ak noonu muy doxalee ñu ci bari ci loolu lañ ko bañe ndaxte tubaab day wax naan jalousie moom dépendre ci ka nga xamante ne nii li yàlla defal keneen ki neexu la loolu nag mooy li nga xamante ne nii moom moo leen dal ba tax ñu jóg ne dañ koy jëmale loolu nag ça ne passera pas parce que nit ñi am nañu xel am nañu xalaat Cheikh du baali setub Serigne Touba la lépp luy war may dëkk bi moo leen ci jiitu moo leen ko gën a respecté ndax baayam di sëñ Cheikh Gaynde ma moo lotissé woon Touba ba Touba tey jii ñu gis ne mbedd yi bokk na ci Sénégal lotissement yi gën a jaar yoon kooku day ñëw sof ca la baayam defoon waaye du ñëw di ko wàññi kon nag kaddu yi jërut muy muy gudd lool rek laa amoon lu ma ci wax xam ne daal la 31 juillet nañ jël marron bees bi xam ne ku la nekkal ci ker naaj wi danga nga koo war a nekkal ci ker gi président Macky Sall lépp lu waa Touba soxla defal na leen ko ba Serigne mun taxaakat taxaw na ne man fama ko dénkaane woon tey falaa ko fa falaa ko gën a dénkaane barki Dembo Ndiaye la ko feddliwaat bi fi mi mi mu turee ñëwee kon nag ñun murid yi ndamul Serigne Touba ndamul Serigne Mountakha ak bëgg-bëggam ñun ñoo ko ci war a gën a jàppale waaye bu nee lii laa bëgg ñun ñu wan ko ginnaaw ah day mel ni murit gi nii woote dafa des kat te loolu man engagement boobu bokk na ci ndax ma gën a engagé wu pour jàppale président Macky Sall ak ñeneen ñi nga xamante ne ay murit yu bëgg président Macky Sall lañ ak bëgg Serigne Mountakha Bassirou ak bëgg dëkkam bii nga xamante ne ni Serigne Touba ñaan na fi lu ne am fi te gis ne loxo